donc salaamaaleykum maa ngi tudd Mouhamadou Abdoulaye Sarr nekk président association ànd defar Ngent mu nekk association boo xam ne ci Ngent la nekk di yëngu ci développement ci développement local association bi mën nañu mën nga créer en deux mille deux mille neuf deux mille neuf boobu la ñuy nekk def ay œuvre sociale parce que li tax ñu euh, créer association bi moom mooy ñu apporter en quelque sorte notre pierre à l'édifice ci développement wu quartier yi parce que ñun jeunes yi dañu comprendre ñu ne développement ñu dëkk ci koñ ñoo ko war a mën a initier leneen lu la fekk def loo fekk ci la pour mu nekk bénéfice moom moo tax ñun ñu ne jeunes yi en tant que jeune du ñu xaar benn maire du ñu xaar benn autorité bi du ñu xaar gouverneur du ñu xaar gouvernement ñun ñooy yëkkati suñuy doole ak suñuy moyen boole kook euh, initia ak personne euh, ressources yi nekk ci quartier bi ñu ànd tabax jéem a tabax suñu quartier bi tala leen loxo nag en partenariat képp lu ñu ci mën di am rek ñu def ko ci moo tax na tey ji ci suñu programme d'activité ñu choisir def randonnée pédestre lu tax na pédestre parce que randonnée pédestre daa am lu ko jiit lu ko jiitu moom mooy espace bi ngeen gis nii dañu gis ni espace bi dañ ko population dafa nekk espace boo xam dafa dafa adéquat ak njariñu population bi te population mënuñ ci bénéficier parce que fii ay camions ñoo fi daan garé wala ay ay atelier menuisier métal daa am fi nekk nit ñi ñu jéem ci di fi tuur ndox ak yooyu mu nekk espace boo xam ne ku boo fi jaar sax da ngay fàtt sa bakkan ñun ne en tant que jeune nañ ko exploité aménager ko jox ko koñ bi ñu xam ne jeunes yi au moins sax am na lu ñu defal seen koñ moom moo tax depuis une semaine ngi nii ñu nekk ci nettoyage bi nettoyage boo xam ne ñun ñoo ko nettoyé aménage peinture ko nii def ko may ko koñ bi te dërëmu état dugg ci dërëmu autorité locale dugg ci dërëmu aussi euh, société piscine bii tamit dugg ci ñun suñuy moyen boob la ñuy dox ak suñuy pexe bopp lañu ñu jëm lijjanti ba créé lii ne ñu ne duñ koy créé noonu bàyyi ko noonu dañ koy créé def benn organise benn euh, journée de sensibilisation sensibilisation ñu ne sensibilisation bi gën a adéquate moo ñu boole mag ñi ak ndaw ñi jigéen ñi ñëpp def benn activité te activité boobu xel yi dajee ni rende presse moo gën a adéquate moo taxoon tey ñu créé rende presse bi pour jaali message leen bii certes seen i doom ñoo ko def pour waa koñ bi kon nag waa koñ bi ñoo ko war a entretenir à ce que lépp lu ñu bëgg ci koñ bi entretenir ko taxaw ko taxaw bu war ba nga xam ni def ko suñu mbiru bopp su ko defee lii mën a jëm ci kanam parce que lii phase de phase de départ bi kese la dañuy dañuy inauguré phase première partie bi mais deuxième partie bi dañ ciy def ay banc euh, def ci ay bac à ordures comme yu mel nii su ko defee mu nekk espace bi conviviable bu tàngee guddi gi. koñ bi ku ci am bëgg a féexlu mën nga ñëw am foo toogee parce que lii dañuy xool ba ngeen moom dañ amu ko fi moom moo tax ñun jeunes am initiative bi koy def def ko pour ko aussi tamit pour waa société parce que koñ bi mu demee ba ba mu ay banc public ngent moomutu ko mais képp ku dëkk ci ngent rek wala dëkk Cees rek jàppani sa mbir la loolu daal moo tax ñu ne journée ànd defar ngent yi ak waa population ngent bi yëpp ànd ceeg ay say bi nañ jéem a jàpp taxaw lu mel nii joxe exemple aussi tamit sunu moroom yi ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci association yi wala ñi nga xam ne ñu ngi yëngu ci beneen domaine ni carrément quartier bu pour mu développer il faut que jeunes yi sol seen dàll taxaw ci jéem même bu ñu amul mënul lépp sax nañ jéem rek ba lu leen fekk sax ñu xam ne def nañ leen mën daal donc loolu laa amoon pour jéem a gàttal ci gàttal wax ji parce que cérémonie ñu ngi ñuy xaar ma ne woon nañ jaan lancer appel lancer appel aussi tamit population bi lancer appel aussi autorités locales yi pour ñu jàppale ñu parce ay ay jeunesse de développement ñu donc on a l'engagement ak ak monsieur le maire nee na vraiment dinañu jàppale mais ñu ngi xaar daal jusqu'à présent gisuñu mais ñu ngi xaar di ko talal loxo di talal autorité locale yëpp su ko defee ñu jàppale ñu ba lu ñu bëgg suñu quartier bi rek yàlla antu incha allah. Moussa Kombo dëkk biir Ngent li nga xam ne tey euh, moom mooy euh, randonnée pédestre bi nga xam ni les jeunes de Ngent dañ ko organiser à la place des vieux nekk na li nga xam ne ñun dañ koy rafetlu trop. di leen encourager di xam ne nag c'est une première mais incha allah nu daañ ci jàpp euh, encadrer leen comme il le faut pour que les prochaines séances se passent très bien euh, randonnée bi dafa am solo lu tax mu am solo moo tax boo goos yi d'abord dañu commencé di def sa setal fii ñu taxaw tey di wax dafa salte woon trop démb lañu fi ñëw nettoyé ko mu set wecc defar euh, image yi ngeen gis fay ko seen xaalisu bopp alors tey ñu xëy woote ni ñi ñëw ñu départ dafa randonnée jógee rond Ngent dem ba ZAC ba léegi nag ñoom lu ñu bëgg rek mooy ku leen di appuyer appui boobu nag moom la ñu demandé aux autorités de Thiès ak ñi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ngent di fi ay kilifa nekk fii war a def jàppale leen mairie bi jàppale leen itam pour que ñoom itam ñu ko ne li ñuy def nga xam ni intérêt pour tout le monde maa ngi leen di remercier te di ñaan yàlla les prochaines séances gën a baax gën a rafet. jërëjëf euh, maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant man euh, Birane Ndiaye maa représenté directeur général phosphate de Thiès donc ma ñëwoon représenté ko tey parce que dañu convié woon tey fii parce que fii ku gis ni mu mel tey ak ni mu meloon fan yee ñu passé ci gannaaw vraiment xam ni am na changement bu am doole. Euh, ñun phosphate de Thiès temps yële passé dem nañ ci mairie dem nañu ay gendarmerie yëpp pour au moins ñu essayer defaraat espace bi parce que ni mu meloon jaaduwul woon. amoon na ay mécanicien ay euh, atelier menuisier métallique camions yi di fi gaare vraiment def nañu lu nekk pour dindi ko mais xale yi ñëw en tout cas waxtaan ak ñi ko occupé woon fexe ba jëlee leen fi defaraat place bi ba mu mel nii vraiment amuñu lu lul di leen sant di leen gërëm di leen apporter suñu soutien bépp di demander aussi que autorités yi ñu bàyyi xel ci xale yi parce que euh, événement yu mel nii ak jëf yu mel nii dafa am solo ñu war ko di ko toujours su amee ñu ñëw participer ci dimbale leen jàppale leen. tey donc moo doon suñu tànku tey vraiment ñu ñëw di soutenir xale yi ci seen initiative bi vraiment di rafetlu liggéey bu rafet bi ñu def fii parce que ku gisoon place bi ni mu meloon temps yi boo ñëwee camions yi fu nekk ñu ngi fay gaare taxi yi di gaare fu nekk euh, il y avait donc occupation anarchique bi fi amoon yooyu yëpp dañ na vraiment kon gàcce a xale yi donc ñu ngi leen di gërëm di leen sant te di leen ñaanal yàlla te di ñaan autorité yi en tout cas ak sociétés yi nekk ci place bi fii yëpp ñu jëm leen a jàppale dimbale leen vraiment ba li ñu def fii ñu mën ko lawal ci yeneen ko yi si des jërë ngeen jëf. bon je me présente euh, Mamadou Seye laa tudd maay président ay Ngent tout d' abord li may commencé mooy euh, saluer bi. Euh, di remercier waa association And Defar Nguinth que ñoom euh, vraiment seen initiative bi ñu ngi koy saluer bu baax que ni euh, vraiment lii embellissement bi ñuy def ci koñ bi ak yeneen œuvre yeneen œuvre yi nga xam moom lañu fi def que ñu ngi koy rafetlu ASC bi mu ngi leen si gërëm parce que lu ci bari ñu la waroon te ñoom ñu ngi ci donc nu duñ def lu dul gërëm leen di leen ci sant ci loolu bu loolu weesoo aussi. comme ñoom aussi ce sont des membres du bureau de la l'ASC parce que c'est nous dans nous comme on dit léegi ñu ngi leen di aussi di leen gën a exhorter pour ñu gën a yokk li ñuy def bañ a bañ a bañ bañ bañ bañ a door bi dans le laurier di leen gërëm bu baax leen sant aussi c'est bon bismillahi rahmaani rahim ala rasulillah ah mbokk yi eh, ñu fas yéene sànni kaddu ci journée bii am fii ci ngent ci sunu xale yi ànd defar ngent eh, fas ko yéene amal eh, ñu ngi sant borom bi subhaanahu wa ci teewe giñ ko teewe mooy xale yoo xam ni seeni chance moo di seen mbir mooy seen mbir lu ñu dugg itam dañ ci boole mag ñi ak kilifa yi waaw lu ñu yëkkati dal bala ñu ko mm, amal dañ ci waxtaan ak mag ñi ak kilifa yi eh, luñ ci xam ñu xelal leen mooy xale yoo xam ni eh, fa tabaarkalla ñu ngi leen di ñaanal eh, yàlla dëgëral leen seen ànd bi yàlla dooleel ko ndax soo fekkee danga nekk mag jombul di am xel dinga am xalaat waaye ndaw moo am de moo am moo am moo am kattan su ko yàlla eh, jubalee ba xelam defar kese moo nekk ci xelam kooku mag dafa koy sante borom bi mooy mooy journée tey bi rek ah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi nga xamee ni ñoom ah seen xalaat ak seen xel yëpp mu ngi def ci jubal ak defar ak liggéey kon ñun mag ñi mënuñu mënuñu lu sant suñu borom ndax bari na ku am ndaw. ca na nga bëggoon ñu mel ñu ni waaye ñun magi ngent yi man mi maay imaam Ndiaye eh, di imaam ratib mos a ngent eh, du wax lu ma xamul du wax lu ma gëmul nag ndax kenn jar ma ko su ma ko gisuloon si ñoom itam damay noppi jàpp sama jàmbur waaye gis naa ni eh, at mu jot wala bis bu nekk seen yëngatu yépp mooy luy defar luy jëmale quartier bi ci kanam ci wàllu propreté wàllu hygiène wàllu social ah. waa wàllu bëggante jàppante ah, loolu ku ko am sa nga nekk mag xam ne mag ah, gune mooy toog place ah, mooy mooy mooy moo war a toog place mag mag mag bëgg-bëggam lépp mooy am xale boo xam ne bile bu ko bu dandoo parce que mag ñi dañuy dem mag ñi daan wax naan ku ku dem mag dem ku demul mag dem kon nag ku am xale yoo xam ni fa tabaarkalla ba ñu nekkee xale la ñu commencé xalaat xalaat bu rafet ak jëf-jëf bu rafet moo ñu lu sant su ak autorité yi nga xam ne nag. ñoom la ñuy xaar pour ñu jàppale ñu ndax itam autorité ñoom moom seen dëkk waaw itam àddina dafa am nu mu tëddee mag ndaw ak autorité autorité comme autorité si ñoom itam fa tabarkalla bu ñu gisee ku taxaw ndax ñoom la ñoom la jëkk a incombé bu ñu gisee ndaw yu taxaw ci jàppale leen kon jàppale autorité la jàppale ko defee autorité itam ñu ngi leen ñaanal yàlla yàlla dëgëral leen jàppale leen bu ñu njëkkee eh, ñu conjugué effort yooyu le mag ñi xelaatu mag ñi Euh, euh, euh, kattanu ndaw ñi ak ndimbali autorité yi suñ ko defee suñ ko defee quartier bi dina mujj mel quartier boo xam ne bi ñëpp quartier yëpp dañuy ñee daanaka sax mën na wax ni ñi ngi commencé di ñee ndax quartier bi man dema ci am njort bu rafet rafet rafet yàlla xam na ko quartier ngeen de am naa ci njort bu rafet rafet rafet rafet yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ah, loolu lañu doon njëkk a wax daal ba tabarkaala bu ñëwee ñu waxtaan incha allahu taala nuyu directeur piscine bi du nuyu bu baax le directeur de l'école de ngent du nuyu l'honorable conseiller Moussa Kombo du nuyu le responsable de l'AIC de ngent du beral nuyu nag ak cant le président de l'association And Defar ngent en l'occurrence Mohamed Sarr si initiative bi nga xam ni association jël na ko dama jàpp ni ñoom lu ñuy def dañuy jàppale équipe municipale bi moo tax du ñu soofantal seen benn activité crois kenn wax na ko chaque fois bu association bi wootee din dinañ ñu fa gis ndax ay jeunes la yu nga xam ni seeni activité nekkul lu dul activité de développement donc nekk ci koñ nag njëriñ koñ gi moo ko gën dëkk si dëkk defar dëkk ko gën donc ñoom bu dëkkee ngent du ci dox du ci def dañuy du def lu dul encourager leen sant leen bu baax a baax baar bi man balaa may ñëw nekkoon naa conseil municipal Thiès Nord maa nekkoon deuxième adjoint bi euh, ville de Thiès j'étais pratiquement le premier collaborateur di maire jatara Mais également, mouvement de jeunesse, nekkoon naa fi président zone de kon dara waruma ump suñu équipe municipale bu jàlloon bu ñu xooloon Xavier ñoon jàppoon nañu ni mënoon nañu fa def ay cantine gars yi population bi bañ équipe municipale bi fi jàlloon jàppoon na ni aussi boulevard bi mënoon na doon ay marché hebdomadaire population bi bañ loolu aussi dama si euh, boo ñëwee nekk maire fekkee da ko lu mel noonu dangay moytu mu dal la nga xool li nga xam ne moom la askan gi bëgg askan gi lu ñu bëgg mooy une commune bien aménagée désordre bi ñu wàññiko bu baax a baax ba ñuy ñëw fii ay cantine kese fi nekkoon ma jox ay sommation ñu occupant wu cantine yépp pour ñu jóg intervention bu nekk laa jot pour ñu toog fi ma ne fii du place su économique dañuy jóg ba ñuy ñëw ay camion lañ fi fekk ba ZAC bi c'est vrai que wàññeeku na mais ba fële ba léegi des na donc il faut que ñu defar dëkk bi bu ñu xoolee boo wàccee passage bi ki nga xam ni moom moo fa def exposition de véhicule bi mbalit moo fa nekkoon ay dof nekk fa ñu koy taal muy saxaar janvier ñoon aussi y avait des cantines à la hauteur de Daniel Brottier jaaykatu soble yi dañ fa doon weer seen soble muy xeeñ loolu am ci dëkk bi ba ñu ñëwee ñu ni il faut mettre de l'ordre def aménagement yi moo tax dañu jàpp ni boulevard Ngent bi biisu la je crois que si chantier Thiès yi bokk na si travaux yu gën a am pertinence parce que sans le boulevard Ngent bu amul woon Coonaax n'allait pas existe fii kenn mënu fee jaar nawet donc tey bu ñu amee investissement bu tey nii avec un éclairage moderne ñun municipalité yi bu ñu ñëwee war nañu entretenir lool moo tax ñu prévoir ren quatre-vingts bacs à fleurs mais également remettre en état di du boulevard Nguinth je crois que j'en ai avec l'entrepreneur donc incha allah balaa tabaski bëgg nañu le boulevard l'éclairage au niveau du boulevard Nguinth mel comme nu mu meloon maanaam chaque poteau ces de lamp muy mën a tàq donc loolu incha allah de c'est vrai que c'est lourd parce que éclairage bi dafa diis mais dama ni euh, ñoo bëgg une commune lumière il faut ñu jublu si donc dinañ ko rétablir maintenant du interpeller aussi les populations par rapport aux actions de la mairie euh, Bac à Fleury équipe municipale bi ñu fi dëkk bëriwul ñu nekk ci mairie bi waa ngent ñoo ko moom ñoom lañ ko defal kon am nañ ci cër pour que mu ra ñu entretien bi da ngay gis ni parfois dangay doo am courage sax da ngay def jékki-jékki fan yële rek la benn oto ñëw mbëkk parce que bu ngeen xoolee daaw entrepreneur bi mu ko joxoon dafa ñëw commencé teg bac à fleur lañ ko waxoon mu indil ñu pot pot de fleur si laa ni roñ leen pot de fleur yi parce que ba mu ko tegee sax yàggul sax même pas trois jours ñu toj donc j'avais dit bac à fleurs ba nga xam ni dina dëgër dinañ fa def lu nga xam ni au moins pour nga yàq ko dina jafe mais dañuy bëgg rek wax population bi mu jàppale ñu si parce que fii tey boulevard bi les quatre vingt bacs à fleurs su taxawee éclairage bi ñu remettre ko à l'état association ngent aussi cet espace mu aménagé ko ba mu nekk un espace convivial je crois que population Ngent ñoo ci jën et je pense que tey mun nañoo jëlee fu euh, juma jàkk bi yem ba ci fond ba mu nekk un aménagement la commune mu xool les avec les bacs à fleurs pour ñu mun ko genre clôturer ko ak bac à fleurs ñu indi dix bac def ko fi mais également banc yi nga xam ne ñoom la ñu def ci Xavier Nione bi ñu war a mën a indi au moins une dizaine de bancs côté bi ñu def ko mu nekk li nga xam ne dañ koy jagleel les jeunes de Nguinth pour ñu mun a am espace ñu xam ne aussi bac yi du toogeekaay boo fi ñëwee guddi ñun ñëpp ci kaw lañuy ñuy toog naan café teg si biir loolu aussi population yi war nañ ci jàppale ñu xam ni alalu askan gi la ñu jël def cette commande la donc ñoom am nañu responsabilité pour au moins euh, jàppale ñu beneen bi aussi mënu ma fekk les populations de Ngent aussi te du ma aussi un peu le marché central bi nga xam ne incha allah après tabaski le boulevard Mao Doucouré sera totalement dégagé c'est-à-dire les bras les bases oranges yëpp après tabaski dinañ ko dindi. les trottoirs yu nekk ci boulevard bi dinañ ko titi on m'a fait trop de tort ñu ni maire ko fa def man dama autorisé vendeur de légumes yi pour ñu toog fa vendeur de légumes yi ñoo wuti seen base ñoo fa def base ñoom ñoo jaay seen base soxla naa sama boulevard dinañu dégager dinaa récupérer sama boulevard que ñu grève que ñu marche j'ai la responsabilité d'aménager ma commune je le ferai man ay marche ak yooyu tiitalu ma lu may xool mooy est-ce que population bi lii buñ ko defee noonu lañ ko bëggee déet wala waaw su ma xamee ni waaw la je je donc loolu aussi doon baax ma indi ko ci leeral du encourager waat bu baax a baax la l'association di xam ni on les soutient de tout cœur on est derrière eux incha allah lépp lu nga xam ni yëg nañ ko ci seen i action lu ñu ci mën a jàpp aussi dinañ ci jàpp li nga xam ni soxla nañu la puissance publique pour mu accompagner leen ñu accompagner parce que désormais il ne faudrait plus accepter aucun stationnement de camions sur ce site la je peux vous mettre en rapport avec le commissaire Touré pour que fii képp ko fi ñëw policier bi bu ko jàppee ñu confisquer son permis de conduire c'est inacceptable le kiosque bii kiosque orange bi si saabu vous dérange lundi ma wax waa ji na ko fi jële parce que ñun ñëwuñu ñu du espace yi parce que même samay service bañ koy bañ bañ ko fiy def j'ai dit c'est pas un endroit indiqué ay cantine du ko dag du ko du pour am fa xaalis dañu bàyyi espace yi mu rafet donc président bu fekkee kiosque bi saabu derange dérange ngeen wax ñu ko ñu wax borom mu jële ko fi donc camions yi aussi si vous avez besoin de la puissance publique saisir leen ñu fi jot a ñu envoyé police ñu confisque seen permis et le problème yooyu ñoo doon kàddu yi ñu leen sant wasalaam